alaikum wa Sénégal salaamaaleykum wa Casamance maa ngi tudd Lady Dia la Casamançaise Tay nak dama ñëw pour waxtaan ak sama communauté yéen ñi nga xamante ne may suivre yéen a bëgg li may def euh, xam ngeen ni bu baax ni dama am benn projet boo pour jàppale les enfants de la rue les enfants abandonnés par leurs parents xale yi nga aussi euh, seen yaay dañ leen. Euh, jur ba pare seen loxo jotul si ginnaaw pour ñu mën a def si ñoom euh, Ramkaw solidarité dafa décider organiser benn journée de don euh, bi nga dans la commune de Niaguis le 28 septembre incha allah donc euh, mu décidé joxe ay fourniture xale yooyu noonu ak ay yére ay dàll dañuy tànn si trente jusqu'à 40 xale yi nga xamante ni ñooñu la ñuy jàppale cette année. Donc, euh, du coup, je suis comme marraine euh, de cette journée. Je euh, ça ma communauté. Je euh, suis vraiment je veux m'accompagner si mon projet. Je suis vraiment xeebuñu dara Kep ko xamantene am nga ay bic yo wara a joxe wala ay cahier wala ay ay crayon lepp luy jëm ci côté jàng wala ay dal wala ay yére xeebuñu dara wala aussi je vais essayer de mettre euh, mon numéro web ñi nga aussi euh, mënuñu joxe envoyé foofu muy euh, jël vraiment ngeen accompagner si loolu loolu boo leen ko defee tey defoo leen ko pour les déjà defoo leen ko pour euh, Ramkao Solidarité mais par contre ngeen ko def pour ces enfants là et ces enfants là sont des avenirs de demain donc euh, jàpp leen si combat bi vraiment c'est un premier pas vers le projet de les déjà pour ñi nga xamante ne vraiment bëgg ngeen pour ce projet là soit en cours.